mbokk internet Kéwoulo TV nuy naa leen ne leen euh, dal leen ak jàmm comme ni ngeen ko xamee ñu ngi ci euh, campagne électorale ba tax na nag euh, waa Kéwoulo nekk ci ginaaw convoi bu coalition jomay président ginaaw bi ñu joggé fi nga xamante mom modi ci Ndakaaru def nañu li nga xamante mom modi région Ziguinchor ginaaw bi président jomay fay ande ak président Ousmane Sonko ñu daal di wàcc fi nga xamante mom modi Cap Skirring defoon nañu convoi jaaree ko fi nga xamante mom modi ci Oussouye demi tam fi nga xamante mom modi Ziguinchor bi ñu eggee nag fi nga xamante ne mobilisation bu takk takku lañ daal di gis comme ni nga ko Ousmane Sonko moom mooy euh, maire bu Ziguinchor euh, ba tax na nag ginnaaw ko euh, neuf mois population bu Ziguinchor daal mobiliser wu ci lu takko pour accueillir ki nga xamante ne moo di maire di Ousmane Sonko le tamit candidat Bassirou Diomaye Faye ginnaaw nag Ziguinchor def nañu itam fi nga xamante ne moo di Bignona itam mobilisation bu exceptionnelle lañ fa daal di nemmeeku Bignona daal di mobiliser wu ci lu bëree bëri ngir dalal le candidat Bassirou Diomaye Faye waaye itam dalal euh, seen doom di Ousmane euh, Sonko ñu daal di koy xamal ne rek Sonko namoon nañ la Ousmane Sonko ne leen maa leen gënoon euh, namm ah, waaye foofu tamit bu fekkee ne Ziguinchor discours boo xamante ne discours namante lañ demeekoon ci kàddu yi Sonko fii ci Bignona nag discours bi dafa xawoon am beneen particularité ndaxte ñëpp xam nañ ne Bignona moom mooy dëkk bu nga xamante ne lu mu fay ci ay doom yu nga xamante ne ñàkkoon nañ seen bakkan ci événement yi fi jotoon am Euh, bëriwoon na trop ba tax na nag Ousmane Sonko ba mu eggee foofee dafa daal di xamal leader yi ñu mu àndal ne Bignona dëkku jàmm la euh, Bignona euh, am na nga xamante ne bind na ko ci taarixi politique ba tax nag lii nga xamante ne moom moo di qualification bi ñu jox maanaam ay nit yoo xamante ne ay nit fit na la nekkul loo xamante ne lu ñuy mën a liir la ci euh, xarkanam euh, population bu Bignona waaye euh, loo xamante ne nag jàmm la loolu la waa Bignona daal di woote te itam loolu lañ fa daal di gis keroog bu ñu fa eggee ci mobilisation bu exceptionnelle bi nga xamante ne population Bignona defoon nañ ko daal di koy réserver le candidat Bassirou Diakhar Diomaye Faye ànd si ak Ousmane Sonko bu ñu jógee nag foofee ci Bignona def nañ itam guddomp guddomp itam bu ñu fa eggee guddi lañ fa daal di yegg ñu gis ne malgré li nga xamante ne moo di guddi bu ñu guddi bi euh, laata ñu fay yegg population bi génn nañ ci lu bëree bëri ngir dalal le euh, candidat Bassirou Diakhar Diomaye Faye ànd avec son mentor mentor euh, politique di Ousmane Sonko bi ñu jógee nag gudam bëggoon nañu jàll dem fi nga xamante ne moo di Sédhiou waaye foofu am na benn particularité bu ñu nemmeekoon mooy dañoo dëpp dañoo obligé daal di dëpp fi nga xamante ne moo di Ziguinchor moo xam donte ne suñu moo nekkoon daal di continuer jëm fi nga xamante ne moo di waaye bu ñu laajtee lan moo waral loolu dañ daal di xamal ne rek euh, fi nga fi ñu waroon jëm dafa daal di guddi donc population bi euh, toogoon nañu depuis quinze heures 16 heures dañuy xaar te heure boobu noonu euh, fekkoon na déjà une heure du matin jotoon na donc dañ daal di dëpp Ziguinchor pour le lendemain daal di fay dellu après bu ñu jógee nag delluwaat nañu foofee ci Goudomp bu ñu eggaatee foofu encore ci Goudomp on était obligé de rebrousser encore chemin euh, sur euh, Ziguinchor euh, bi yoon nag li ñu la xamaloon nag mooy euh, c'était des risques de d'affrontement parce que ñu doon dégg euh, comme voit le candidat Amadou Ba mu ngi doon jógee Kolda dara dem fi nga xamante ne moo donc te non seulement guddoon na pour bañ ay confrontation diggante ñaari candidats donc suñu cortège bi dafa mujjee woon delluwaat fi nga xamante ne moo di Ziguinchor fanaan fa mooy ñaari fan yu nga xamante ne fanaan nañ ci Ziguinchor bu ñu dellu soirée nag def nañu tanaaf après Tanafu nak ñu daldi def euh, Kolda euh, Kolda dam buñ ñu fa eggee gis nañu euh, mobilisation bu exceptionnelle mi nga xamantene population Kolda defo nañ ko parce que Amadou Ba buñ ngi fay ci guddi gi ñun ñu egg fa ci bëccëg mais li nga xamantene mom lañu la ñu nemmeeku foofu Kolda bi nga xamantene ne ñëpp jàppoon nañ ne Mamboy Diaw moom moo ko moom soit kii di Abdoulaye Doura balde doon des bu LONAS mais buñ fa égué population bu Kolda dañu génn ci lu tax a daldi dalal le candidat Bassirou Diomaye fay ànd si ak ak son mentor politique Ousmane Sonko pour wan ne nag bu fekkee ne am na benn réalité bu ñu doon xamee ci euh, Kolda euh, bii ci élection yi nii mun nañu euh, xaarandi li nga xamante ne moo di changement wala en tout cas reversement de situation mujj rek ci li nga xamante ne moom moo di opposition bi ndaxte bu ñu bu ñu basé wu ci mobilisation bu ñu fa gis mun nañoo jàpp ne rek xel dafay daal di daal te xam ngeen ne Kolda itam foofu la capitaine Touré daal di dëkk moom itam bu ñu eggee foofu

Euh, faible taux de de mobilisation lañ fa dal di nemmeeku maanaam ñii ñi génnoon euh, pour dalal euh, la caravane du candidat Bassirou Diomaye Faye wala li nga xamante modi moo convoi bi bëriwuñu te li ko waral nak moy xam ngeen ko Sédhiou doon na région bi nga xamante à chaque fois parti au pouvoir mom moo dal di gagné fofu tam ça peut se comprendre vu investissement yi nga xamante le président de la République Macky Sall dal di koy def ci Sédhiou ndaxte ko wax dëgg rek xamné région Sédhiou en tout cas changé na ci li nga xamante modi moo di xarkanam am liggéey bu bëri bi bi euh, président de la République Macky Sall ak ànd ak euh, son gouvernement def nañ ko foofee ci euh, Sédhiou leneen tamit li nga xamante ne mënoon nañ kaa nemmeeku bi ñu nekkee dans le secteur du sud mooy tangoor bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko diggante Ziguinchor Kolda ba fi nga xamante ne moo di Sédhiou ba tax à chaque fois dafay daal di indi ay complications ci li nga xamante ne moom moo di itinéraire wala li nga xamante ne moo di liggéey bi ñu doon amal ba tax na nag ñu bëri si di eh, suñu eh, convoi bi rawatina si auto presse bi dañ daal di leb li nga xamante moom moo di eh, koor gi parce que dafay toll ci ay lu toll ci 46 degré yoo xamante ne gi dafay daal di toll loolu boo ko naree boole ak li nga xamante ne moom moo di woor di taxaw ci naaj bi pour filmer wala pour wax ak ñi nga xamante ñoom ñoo di militant ak ko waaye itam ci ñi nga xamante ñoom ñoo di garde corps yi parce que liggéey bi ñuy def dafa daal di métti pour euh, boole ko ak li nga xamante ne moom moo di koor wala boole ko ak filmer wala daal di euh, wax leneen tam li nga xamante ne loolu lañ daal di euh, nemmeeku ci biir suñu caravane bi mooy itinéraire bu bëri bi nga xamante ne à chaque dañ ko daal di modifier moo xam c'est parce que dañuy bañ ñu daal di daje ak jeneen convoi wala dañuy daal di bañ indi ay li nga xamante ne moo di affrontement diggante Euh, convoyé waaye bu ñu eggee ci Sédhiou foofu itam foog ñu daal di koy relever daje nañ fa ak le candidat du PUR euh, Mamadou euh, Dia moom daje nañ foofu mais bu ñu dajee dafa daal di wàcc ci li nga xamante moo di oto am dem fekki le candidat Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñu daal di saafonte wan ne li ñu boole moom moo di politique waaye Sénégal bi ñu bokk moom moo ñu ëppal fuuf solo li nga xamante ne moom moo di politique te gis nañ ne ñaari convoy fekkente nañ ci ci Sédhiou problème amul dañu daal di saafonte jàmmante nag continuer li nga xamante xamante sion bu ñëgé fofu ci Sédhiou fofu la Ousmane Sonko Daldi di euh, jëlal beneen yoon bi maanaam delluwaat fi nga xamante modi moo di Kër def euh, Tambacounda euh, pour Daldi jël côté bobu nonu mu daldi fay mener le campagne la campagne au nom du président Bassirou Diakhar Diomaye Fay lu ko waral nak moy caravane bu euh, candidat Bassirou Diomaye Faye dafa daal Dakar donc on a perdu beaucoup de temps à Dakar pour rattraper temps bi mel euh, Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dañ daal di Ousmane Sonko nara def euh, Tamba pour dajewaat ak ñun fi nga xamantene ne moo ci Mbacké moom Bassirou Diomaye Faye jamar ji ñu wax ak yéen ñu tollu fi nga xamantene ne di Kaolack ñu nara def ci tam Kaolack def Fatick pour dajewaat ak ki nga xamantene ne di Ousmane Sonko ci Mbacké ensemble ñu nara encore continuer li nga xamantene campagne bi pour remonter encore vers le nord Euh, laata ñuy jeexal fi nga xamante ne moo di ci ndakaaru donc mbokk yi internet euh, yi pour le moment lii mooy li nga xamante ne loolu lañ mën a jàppagum ci euh, résumé ci li nga xamante ne moom moo di euh, caravane bu candidat Bassirou Diakhar Diomaye Faye nu ko dalee ci euh, Ziguinchor fu ñu tàmbale ba fi ci Kaolack fi nga xamante ne foofu lañ daal di egsi pour le moment euh, daal di xamal ne rek encore une fois ne Ousmane Sonko jël na beneen yoon bi nga xamante ne mu ngi fay mën a campagne ci turu Bassirou Diakhar Diomaye Faye moom nag Bassirou Diomaye en tout cas gis nañu benn discours bi nga xamante ne mu ngi koy commencé di di génne bi nga xamante ne rek des fois dafay doon ay attaque wala ay tontonte ci diggante moom ak ki nga xamante ne moo di le candidat euh, Amadou Ba doon ki nga xamante ne moo di candidat bu parti au pouvoir nekkoon ak moom itam fi nga xamante ne moo di impôt et domaine des fois dafay am ay tontonte wala ay lancement de pic yu nga xamante ne dafay am seen biir waaye pour le moment nag aucun incident à à déplorer wala amul lenn loo xamante ne dañ ko daal di ñaawlu xanaa rek euh, dëmb bu ñu eggee ci Nioro balaa ñuy egg si euh, gisoon nañ ne jeunes yi en tout cas militants ak sympathisants yi ñu doon euh, fay jàmmante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di taskatu xibaar yi ndaxte bu ñu egg see gis nañu ay pneu ñu fa taal gis nañu tam ay xeer yu nga xamante ne sandiwoon nañ ko itam ay lacrymogènes yoo xamante ci euh, Nioro waaye lakk euh, li ñuy ñaan rek mooy ñu daal di mën a eggal li nga xamante ne moo di campagne bi si jàmm ak salaam bu ñu eggee ci dimanche 24 mars incha askanu Sénégal moom mooy tànn ñoo xam kan lañ bëgg mu leen mu jiite leen euh, mu doon cinquième la République bu ñu si eggee rek ku ñu si tànn ñëpp ànd moom ñu daal di wëyal li nga xamante ne moo di doxal Sénégal mbokk yi li leen leen indi tey ñu leen di jox dig daje ci kanam tuuti ndaxte bu ñu fii ci Kaolack rek buñ nañ fi nga région euh, le candidat Ousmane Sonko euh, continuer euh, campagne électorale pour le compte du candidat Bassirou Diakhar Diomaye Faye